BFM Forums. ci seen teewaay tey ci euh, yeewu leen bi c'est vrai que depuis un moment amu leen benn jot ak euh, projet bi di Woman Groove euh, muy projet bu ñu dajalee ay ay jigéenu artiste Mamy Kanouté démb rek ñu ngi lay waxtaane ci yeewu leen bi bokk nga ci jigéenu Afrique yi nga xamante ni am nañu présence bu am solo sur la scène internationale tey ji ku dem ci dëkk yu mag yi bu dugg ci ay Fnac mën na fa fekk sa ay album Vent de l'Est bu ci musoolu démb rek teg nañu way bi Euh, Baba Maal mais d'abord euh, dañ leen di bàyyi ngeen euh, nuyoo ngeen ànd ak seen càmmin El Hadj Numukunda autorail nag dégg naa ñu naan mbay bu jibee bu jibee gare des Cornets alors on vous écoute d'abord ñi Massar ak Mami Kanouté et puis après ñu waxtaan ci projet bii di Woman Groove nada si c'est nada nada nada. je ressenti chez le marché. dama ma dégluwaat mu mu mu déglu. waaw léegi noo ko sant ba ma ko ma jëlaat am na problème. li ma bul àll waay. non bu ñu la coaché. nga xam ne fu mu la. mais c'est normal. te lii denc nañ ko nee naa ko dañ koy denc. ñëpp ñoo la dugg. Euh, euh, voilà donc euh, projet bi dañ leen won tuuti ambiance studio bi ak naka la ñu enregistré album bi backstage la en tout cas et puis ma dafa am style. Mm-hmm. non je on ma tes cheveux Nima. Ah <laughs> bu fekkee euh, lépp baax na ci ginnaaw je pense que mën nañu waxtaan ak ñoom et puis ñu woyal ñu tuuti avant gu euh, lu ñuy euh, préparer la pour samedi bi centre culturel français centre culturel Léopold Sédar Senghor balaa ñuy waxtaan ak ñi bay waxtaan ak Mami Kanouté mais ñu déglu leen Thank you.

jóg du géeju ndox géeju ngor ak jom la leen ci soobu mu dox xam ne mbir mi yaay wu yeete xamale ne tukki du tekki la suñu maam yi lañ njëkkee dajale leen ci ay fond de cale ñu doon ay esclave dem béy toolu oncle Sam bi histoire tax ñu war a suñu ngor xam suñu bopp ci gàddaay ku ci fexe ba egg kaaw suuf rek ngay féete wàcc bees doon jàmbu bees ñàkk peep ñàkk pexe ba ñàkk sangoor bëgg siggi mu tëla bëgg ñibbi mu tëla Sonkoni sana wulu mujurma ngeen di jóge feneen suñu biir continent bi la saxee ba pare kon nañu sàmm suñu gox taw suñu gaal mu jëm ca kanam jawal jawal mu jëm ca kanam ah, jawal mu jëm ca kanam bravo <laughs> alors Mamy Kanouté yow kenn dootu la euh, présenter déjà euh, miin nga genre projet yi euh, ñu jël ay woykat yu jigéen dajale leen ñu ngi fàttaliku African Diva 2002 la woon donc 2017 ngeen ñëw ak Woman Groove pour présenter ñi ma séréer la c'est vrai maay buuram mais li muy def nee nañu dafay rap d'autres disent que la am na sax ñuy wax ni dafay def slam Euh, ñeneen ñi di ko méngale ak euh, Amy Winehouse mhm. euh, on est très ravi de savoir que demuloo rek toog France ni écoute complexe nga et la France yi dafa gën ñëw nga itam bay ci li nga xamante ni loolu nga nàmp parlez-nous de projet bi Euh, bonjour salaamaaleykum euh, projet bi kat c'est le projet d'une rencontre entre Mamy ak man Mamy ak man bokkuñu parcours mhm. Mamy moom dafa juddu màggee ci famille yoo xam ne ñoom dañu dañuy wéy dañuy xalam lu ne du dem ci musique yëpp xam nañ ko mhm. man jógee ma famille bu mel noonu man mhm. séeréer laa ñëw min ko ay gelwaar lañ normalement ci suñu aada duñu wéy mais toujours est-il que sama famille famille artiste la muy ay écrivain mu doon ay chanteur mu doon ay metteur en sama famille yëpp ay artistes lañ. ñu ngi ci culture bi. ñu ngi ci avant tout. Mhm. donc euh, avant tout ay intellectuels lañ tamit. Mhm. man li ma jógee fii j'avais 20 ans donc c'était en 2000. ak mhm. France ça fait 17 ans que je vis là-bas. jàng. jàng moom ma fi yóbbu j'ai un master en sociologie. teewul ma def musique rap bind def peinture lu ne. donc tey nag. Ousmane Faye je l'ai rencontré là-bas. Mhm. mu ne ma dafa am benn projet bu ko tenir à cœur vraiment mooy rencontre ñaari types de africaines yoo xam ne elles sont très différentes. Ah oui. mais elles ont en commun qu'elles viennent du même continent et que ce sont des femmes indépendantes. Mhm. qui entreprennent. qui tracent leur propre chemin avec leurs particularités. Mhm. donc moi le projet m'a mhm. j'ai rencontré Mamie à la Factory mosuma ko gis xawma ko woon je n'avais jamais entendu parler d'elle. Mhm. et voilà en tout cas la chimie s'est faite naturellement. on a choisi les thèmes yu ñu en tant que femme pas simplement en tant que jigéen mais en tant que nit aussi. ak suñu sensibilité. pour wax am lu ñu mën a en tant que artiste yee nit parce que après loolu bëgg am na solo lool waaye benn instant il faut ñu di yeewu tuuti mhm. tuuti gestu mhm. donc l'idée du projet c'est ça nag may aussi jigéen visibilité fu mu mënee wax mhm. audience fu ñu mënee wax parce que dëgg la nekk nu mu ti demee on est en 2017 évolution yi bëri na depuis jigéen di nekk jigéen waaye ba léegi minorité lañu te minorité boo xam ne on a on subit beaucoup de violence quand on sait qu'une femme sur sept dans le monde est violée que millions de femmes dans la planète sont victimes de mutilations, d'excision ou autres, mm -hmm. qu'une femme sur trois meurt euh, sous les coups de son mari dafa bëri te dafa métti donc am na solo tamit ñu toog mën a wax loolu wax que muy foofu muy fii c'est le même problème la femme ça reste une minorité. Mm -hmm. donc voilà. nekk ay porteurs de. voix def nga album. def naa EP parce que man j'ai un solo qui s'appelle Tie and the Love Process. Mhm. c'est un projet plutôt fusion rock afro jazz hip hop. Mhm. Euh, def nañu EP il y a 3-4 ans laa album mu ngi pare. Mhm. incha allah peut-être en avril mai dañu ko dégg. super en attendant yéen a ngi ci projet bi Woman Groove daal. voilà euh, Mamy Kanouté yéen a ngi ci euh, Woman Groove d'ailleurs samedi dañ leen di fekk centre culturel français wax naa ko sànq yow miin nga xeetu projet yi. waaw waaw maa ngi sant yàlla di lu ci bi di nuyu ñu nag plateau bi di toog ñu si biir plateau bi di jaajëfal aussi sama nijaay ak sama grande sœur ñu ma saa neex a liggéey aussi waaw di wax rek li euh, ñu koy waxee rek gërëmee ko lépp Ousmane Faye aussi c'est grâce à lui dëgg on se connaît pas mhm. mais ñu ngi xamante ci projet bi moo tax xamante mhm. Mm-hmm. te di fi jox liggéey bi ak xam tamit mm-hmm. Mm-hmm. waaw ndaxte xam nga booy liggéey rek dafa am na mu àndal mooy lan resté bi ak gëm sa bopp xam sa bopp di wax nag ca année mm, kii mois de mars bi ci jigéen ñi bésu jigéen ñi la comme ni mu ko waxee dafa jeex léegi di toog ci la jigéen di ko def comme mbaam aussi dañoo war a bañ loolu ñun jigéen ñi te yàlla mu ñuy sukuraal di ñu jàppale muy jëm ca kanam ndaxte yàlla na ku sagal jigéen yàlla sagal la ku sigil jigéen yàlla sigil la ko kon loolu ñu koy baaxee suñu yaay yëpp di ko baaxee jigéen Afrique yëpp jigéen salle yëpp du wax nag ñu ngi ci women cause mhm. ci projet bu baax aussi mhm. bi avancé aussi ñoo ngi ci euh, incha allah le 4 mars ñu ngi war a jouer centre culturel français CCS ñu ngi war a jouer foofu bu ñu fa paree aussi ñu ngi préparer aussi yeneen tourner aussi. Mhm. ci projet bi aussi. Mhm. projet bi dafa jur album moom la ñu am nii ci euh, plateau bi sa album bu mujj itam jigéen ñi nga ko. nga ko nga ko jagleel lan moo tax nga bokk ci projet bi di xeexal sa moroomu jigéen ñi moo tax bi nga gisee lii nga dugg ci wala. waaw projet bi loolu tam bokk na ci te ñax bi. Mhm. Ousmane Faye la ndax dañoo yàgg liggéey moom mhm. tamit. Mhm. mën naa ne bientôt ñu yegg ay vingt ans. mag moom. ndaxte comme ni ñu ko gars yi di waxee lépp na nga ko commencé ci mbapat. te Pape mën naa ne aar bi tamit mbapat naa ci ci mbapat ba ma mee mbapat tamit moom tamit jàppal na ma ci nag lu bëri nag ndaxte nee nañ ku la defal lu baax na nga ko wax c'est pas que le projet bi moo taxit dama yàgg mbapat ak moom aussi du du dàq ba yàlla def tey projet bi ñoom ma fekk ko fa nag aussi mhm. du projet bi moom ma fi fekk projet bi yëpp man moom ma fa fekk mhm, mhm. ma nekk ak moom ci loolu nag ñu dem nag ba lii bu yàgg am yéene nag pour ñu def benn liggéey. Mhm. te yàlla nag te la ko mhm. euh, beneen couleur style ñu ma. Mhm. ak sama couleur c'est peu différence aussi. faut pas aussi ñu yaakaar ne mandang bi la rek ñu nekkoo ci wayi ndaanaan bi aussi laaj nga changé couleur bi tamit. tuuti comme ni ma la ko waxee xamante ñu ngi sant yàlla ndaxte yóbbu nañu ba France Inter. aussi ñu dem dafa benn émission ba importance aussi. à France Inter aussi. xam nga te mi ngi jur yeneen ak yeneen bu Ndar. Mhm. joué foofu ba yàlla andiwaat fa yeneen centre culturel français bu. bu Dakar euh, Mauritanie ah, gën a jëm ci kanam daal ba projet gën a yokk. lan mooy attente yi lan ngeen ciy xaar euh, ci album beeg projet bi. waaw ñoo ngi xaar nag. Euh, succès bu bëri te gis nañ ko mi ngi dox añuma ah, ah, gis nañ mi ngi dox xaama jox nañu ma moom voilà comme mu expliqué attente yi li ngeen ciy xaar man moom mënu ma wax way <laughs> nga gën a mën ko wax ñi ma ayca <laughs> alors attente yi tout projet mooy am visibilité déjà parce que booy wax dafa am koy waxal donc il faut que nit ñi mën la dégg mhm. nga mën a dem aussi am lu la remettre en question am échange am feedback simplement am ay interlocuteurs mhm. donc on espère vraiment mën a tourner un maximum muy fi muy Afrique muy France muy Europe l'idée c'est voilà de transmettre le message au plus large, public. Mhm. Voilà. Alors vous allez rester avec nous parce que ñu ngi waaj a tàggoo. excusez aussi parce que am na lu am Sénégal yàgg naa jóge fi mais ma fi jógee ñëwee jouer il y a quelques années j'étais assez surprise par le regard des autres chanteuses ou femmes sur moi. Mhm. di ma laaj mais def. bi ñëw seen nga def nga jógee balafon yuuxu def ni ça m'a semblé étrange je me dit donc yow am na benn liberté boo xam ne en que femme fille artiste duñu parce qu'il faut dire aussi que la musique c'est un métier d'homme mhm. lu bëri bëri na ci góor mhm. donc góor ñooy tey loxo xale yu jigéen naan defal nii defal naa mhm. donc c'est un peu étrange de se rendre compte que beaucoup de femmes artistes africaines ou sénégalaises en tout cas si ma xam amuñu vraiment seen espace su bopp pour mën a jël seen propre décision seen propre direction artistique même ñu amee sax idée am parce que gis naa la ci euh, élément bi ñu léegi nii nga yore guitare waaw ah, dëgg la da ngay jouer ay ah, <laughs> donc je pense que li ma mi ak man taxawee devant une scène ah. di jël suñu propre décision de ban wéy la ñuy wéy nu ñu koy wéyee ak nu ñu koy arrangé mm-hmm. am aussi suñu baat ci direction am solo mhm. c'est aussi la preuve par l'exemple que c'est pas parce que tu es une femme que tu as besoin d'un homme ou d'un producteur ou d'un DA pour t'expliquer comment faire de la musique voilà donc loolu na solo mu ngoog euh, pendant que samedi ñuy dem euh, seetaani euh, Woman Groove centre culturel Léopold Sédar Senghor Youssou Ndour ak Super Étoile ñoom dinañu nekk Côte d'Ivoire ñaari le 3 ak le 4 vendredi ak samedi donc Abidjan Euh, sénégalais yi fa nekk bi boo ngeen njëkkante ak euh, waa Côte d'Ivoire pour dem mën a teel a en place fekkee euh, ñaari spectacle yooyu nga xamante ni Youssou Ndour daf ko boole ci tournée africaine ak album Africa rek je pense qu'on peut regarder bi ngeen mën cee bàyyi xel donc le 3 ak le 4 mars Youssou Ndour ak Super Étoile tournée Africa rek Côte d'Ivoire. Youssou en concert live exclusif. Salut, c'est Youssou Je serai avec vous le 3 mars au Sofitel à l'hôtel Ivoire et le mars au Palais de la Culture de Crècheville avec le Super Étoile au grand complet. Abidjan, j'arrive. Oh, be mine. vendredi euh, vendredi 3 mars ak euh, samedi 4 euh, mars yu Ndour ak Super Étoile pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Côte d'Ivoire mun ngeen dem ngeen fekkee spectacle bi 10h39 ñu ngi xaar anniversaire yi pour pour jeexal émission bi tey alors Mami Kanouté ak Nima Sarr El Hadj Numukunda merci en tout cas ci ñi nga leen di gunge lan mooy nekk surprise bi samedi fële CCF lan lan le public bi ñëw mën a mën a mën lan la ñu mën a fekk foofu. ah Pape loolu kay jarut a laajte. Mhm. Mamy rek ci kaw chaîne. Mhm. xam nga gars dañu maa yàgg di dis ci yeneen affaire nee leen <laughs> kon nuñ ko waxee saabu du fóot boppam doo wane lépp nga mën mais ñu ngi sant yàlla ni xam-xam aussi. ba may mhm. xale ba léegi. du ko ci sant yàlla xam nga loolu dafa war a nekk spectacle. ndax Mamy Kanouté kese ci kaw chaîne dafa tawte na nag ak ñu ma saax. ah kon loolu xam nga loolu leneen la war a doon. et puis album bi nit mën nañu ko am foofu. mais bien sûr. album bi. war mu mën am dina am foofu incha allah. album mm-hmm. dina am foofu. Mm-hmm. ndaxte ñu ngi koy jox di ngeen gis daal lu doy waaru daal. Mm-hmm. ay jigéen ñi tëgg ak lépp dinañ ko ci. ñu maa da nga nar a tëgg. kañ ñu maa ah ma wax la ba papa. da tëgg da ngay tëgg wala da ngay da da ngay fecc rek. waaw damay guitare tuuti rek. <laughs> tuuti tëgg tuuti guitare tuuti wax tuuti rakkaaju tuuti un jeex na on va vous écouter encore pour finir euh, laataa ñuy jeexal ak euh, anniversaire yi El Hadj Wa Aïcha demal waaw Mamu Kanté soo ko masaana fekk muy aw keneen mhm. su duggee solo doo bëgg doo bëgg mu bàyyi dëgg la de boobu feeñul de mhm. mais bu bëttee ba génn mhm. non doo bëgg mu doo bëgg mu doo bëgg mu arrêté. bu bënnee daal ba dem waaw moo tax macha allah. bu nee der bu nee doo bëgg mu bàyyi. xam ne géwélu ba géwélu bambara baa ngi. macha allah mais <laughs> ñëpp ñëw na bu euh, am maanaa la. El Hadj blessé woon CCF bu tubaab bi bi ne fële ville. Euh, euh, certificat français waaw CCF waaw. non man daal dëgg la man amul grammaire de toute façon. <laughs> wax naa fois. ayca <laughs> ñu dégluwaat Mamy Kanouté ak Gnima Sarr je rappelle que euh, projet baa ngi nii ci album la nekk ñu tuddee ko Woman Groove Project donc samedi on vous donne rendez-vous euh, fi nga xamante ni mooy euh, CCF centre culturel Léopold Sédar Senghor ñu dégluwaat leen. yoonu tekki mbaa takkali ba taxee bëgg a tekki taxuma te gi yoonu teggin takkali ba taxee ma gënal fuuf te bi yoonu tekki gëm sama yoon jox ko akam nangu doon la fi ma kaamam fipp gëm sama bopp ndax fi lu waaye def teew ñeen ñaa ngi gaañ seen bopp jaay seen bopp ngir tekki ci faxastal jusque sa morom baa sa borom te ñu naan yàlla yàlla béy tool ku gëm feesal sa bool teewul ak na doon potu ndaal yow naanal jox sa morom mu naan naanal jox sa sa morom mu naan ku la mënta soo xewee mu foli faa soo xewee mu fooli la ba tax ne jëf ju baax yàlla moo koy fay ki jaam bilaay soo mënee dimbali ko mode adama aysata iliman sire toro da sama ngai jamma banyu gana sama mariama lo ma nimawa ci jamonoy bekkoor ñu mësa tolloo ngor kekk ni lañuy wute des fois ñii di woote am am ñee di sakku xam-xam yoon yi te wute doo fen fen ba kaawi adoon dina wàcce ba soxo andi la gàcce ni waajee tàmmoon lu yomb doon jaay pënd xeer bu féex fekk taawam dee tàlli ko néegam docteur yi ne ka yi na yóbbu xol bi yow xamel te ràññee du bañ a fàtte ne ma ne xamel te su xol di nàccee fa la dëgg di bàcce yow te bi yoonu tekki mbaa takkale ba taxe bëgg a tekki taxuma teggi yoonu teggin teg du yoonu tekki ba ak ba taxe ma mi bëgg a tekki taxuma teggi yoonu teggin takkale ba taxe ma gënal fu te yoonu tekki te du yoonu tekki te du yoonu tekki te du yoonu ku la bëgg bëgg ko ku la bañ dala noppal tuuxal bëgg a dee ànd doo ñu ko Massar ko kay Pape Cheikh moo bëgg Mamy Kanouté moo safa Mamy mu nee ku la bëgg Mamy bëgg ko ku la bañ lay wàññi ku la yàlla mayee sante ko sa borom ku la nga na jaba singa Diallo jakite siri bay ñaami sankana baari ku la ñaama tagaate Pape Cheikh Diallo ku la suusa tagaate mali elini mali mali mu neexee ndanaan la jàll ana Pape Doudou ma ko way wayu ndaanaan danaa a a way ku la nga ne jaaba si ma tonton Kalmi dégg naa la <laughs> si naani jaaturu si naani jaaturu si naani jalloo jakite jalloo jakite siribe naani sankare baari fula si manja bako pullo soo ko pullo li ko pullo de ko mbalo pullo jaawo pullo dee ko pulo njaay ko pulo ne be dara julu fo mbok jara fara ci ordonnance bi wala mbu farandange faram bo dige ne be dara julu fo ye ye male waya suma woyu wallahi ndaanaan man xam naa soo xewee mu ko mu folli la <laughs> bravo merci merci Mami Kanouté euh, merci Gnima Sarr kontaan nañu félicitations donc rendez-vous samedi incha allah ñun ñëpp dinañ ñëw seetaan si leen bu soobee yàlla. waaw papa tey di sant gërëm tamit di sant staff waa TFM yëpp. Mm. di sant sama nijaay yu suma jigéen bu baax ak ñoom booba. su ma leen limee damay jub mais dañuy sant bu baax. Mhm. El Hadj Numukunda Sissoko ak Hervé mhm. Samb. Mhm. ndaxte projet bi dafa yokk sama xam-xam lu bëri ci musique ndax ah jooy naa ci ñu tombé woon maa ngi nekkoon en état mais jooy naa ci ndaxte lu ko jar moo ko jaax imposé na ma boo dégloo moo sa bu ñuy wax musique da nga yaakaar ni sax du man ndax dañ ma fa teg cadre ma fa imposé na par la force da koy def mu ku ma nag lu rëy li nga xam ne lu war a lu jar a euh, bàyyi xel la mooy lan benn album tonton Youssou Ndour bu ñuy wax ama una ma na ma ama mm, mm, mm, xam nga ñoo def kër yi yaa def kër yi d'ailleurs dañooy ñëw boobu fekk na tonton Kabouké moo ñu wowoon ñoo dugg ci biir studio bi boo fekk tonton yu nekk fa woon je me rappelle très bien. Mm-hmm. nekk fa woon mu ñëw tonton Kabou Gueye di ñu jox kër ñu koy def ba mu dugg ak grimace am yëngal seen fu yëngal foofu. Mm-hmm. ne waa lii mooy ban morso tonton Kabou ne ko soo paree rek yow yaay ñëw duggal mu ne ah. Mm-hmm. ma ne waa kon kii xamul moom moo war a li gars yi ma du noppi. ma ne ah xam <laughs> xam nga loolu roykaay bu baax la ma ñëw moo tax bañ ma imposé ne ma naa def lii sama xel dafa dem ci moom yar ma ñëw def ko mënu ko mais dama ko imposé ma def ko ndax ku tey ni kooku uh-huh. ñu ne ko yow yaay ñëw def li mu ñëw def ko kon man mm. mbate bu ndaw ñu waxee ñëw nga def loolu war naa mën a nangu def ko loolu moo julli waxoon laa lay waxal en elle moi je crois moom Mamy Kanouté euh, parce qu'elle a beaucoup de talent et puis Nima Sarr félicitations ñu Gambie reviens nous voir quand tu veux euh, parce que ñun yéen lañ fi nekkal on va finir cette émission El Hadj Mbaye Garmi il faut ñu nuyu